faraa'idi eh, ci ñi ñàkk seen uh, bakkan na kon mbokk coronavirus bi ba fi duggee ci réew mi depuis ñaari fan ci weeru mars ba tey jii di mercredi. ba tey jii di mercredi 23 mars ñi nga xamante ne ñoo am corona. kon mbokku internet. di baaluwaat ñëpp ak di ñaanaat rek comme ni koy faral di defee saa su ne ci sonn duñ ci taay di ñaan yàlla rek li nga xamante ne moom mooy mbas mi di coronavirus coronavirus coronavirus di ñaan yàlla. ngeen xam lan moo nekk ci biir. ñu dem ah. ay buntu. ay bii buntu. fu ma romb ñu ne borom bêtisier yaa ngi nii ok léegi damay yaru su may commencé émission léegi damay yaru ok sama rouge à baax na. ñett yëpp pour ñu am ko li laay war dafa war dafa pour ñu am ñett yooyu yëpp sama sama sama damay déggaat sama bopp ndax li ma taqee sama nopp damay déggaat sama bopp ndax li ma taqee sama nopp yi. loo bëggati xam xam. eh eh, eh bii bu ko jëf. yaa ngi si jaam naka suba si. Hmm, maa la raw. ne ko waaw waaw waaw ba léegi dégguma la hmm. Hmm. Ah, c'est bien man mi tamit léegi laa añ de maa ngi nii soo commencé tournage ah. d'accord su ma paree naa la def siñ saa maa ngi ñoo def mode avion nag <laughs> Allez, tout à l'heure. Bisous. test micro. Euh, quel mon stylo Alma euh, Voilà, salam alaikum, cher internaute de. Quel moment la Bibi Man, maa gën a yomb la, nekk maa gën a métti la. C'est bon, baax na fi. Ok. Sérieux, sérieux. Eh, sois sérieux. T'es con toi, sois sérieux. allez bien quoi allez bien. rajo ça va ah. jaa ngeen jëf balaa ngeen si boo xay si bi maanaam jéggi na dayo gis nañ li toll si fanweer ak ñaar ci ñi nga xam ne ñoo dee gis nañ ci ñi nga xam ne moo di ñaar fukk ak juróom ak ñett ci ay yoo xam dégg maam ñoo ci am coronavirus. gis nañ aussi ñi nga xam ne juróom-ñaar téeméer yoo xay si maam dégg maam ñoo ko am ci àdduna wër na këpp. mbokk yi xarit loolu la ñu indi woon si coronavirus di leen ñaan yàlla ngeen bàyyi bañ a sol seen masque te bu kenn dox sa ndox ak saabu ngir yàlla yonent bi am leen contact deen laalante yéen ñëpp ngir yàlla yonent bi am leen contact deen laalante yéen ñëpp jërë ngeen jëf Bueno, ya no me llaman. yéen eh ñii ñoo ma xeeb. waaw ñii ñoo la xeeb wax dëgg yàlla waaw man mënoon naa ko tëb mënoon naa yéen ñii yéen a ma xeeb. yow boo paree day fàtte. ne ko ci waaw kay. ay méng fii di ma woo te la ko. xam nga du yoon ngay présenté bi dugal la sa bopp ay cravate. xam nga du yoon ngay présenté bi dugal la sa bopp ay cravate. lépp dañ da ngaa war a defaral. allo allo. monsieur Mbengue. c'est tax ñu nekk fii tey tey nag ñu indi leen émission bu doy waar comme ni ñu sonal na société bi parce que. parce que fi mu toll nii mën nañ ñi rey gi bëri na ci dëkk bi looloo waral suñu émission tey bii te mboobu lañ ciy waxtaanee ndaxte rey gi ñaaw na ëpp na te teguñu ko fenn Sénégal léegi da ngay xëy ñemeetoo teel a xëy ndaxte rey gi ñemeetoo guddee wàcc ndax rey gi kon jot na ku ci wax jot na ñu wax si rey gi parce dafa ëpp.